du ma sax dix minutes. Mm-hmm. xam naa ne am na boo xamante ne moom ñàkkul ne daan ko jox Modou Lo ndax dégg naa sa waaye. waaw Modou moom. Uh-huh. ni ma ko doon waxee si jële boo gisee may tudd turam léegi nag. Mm-hmm. li ma jël engagement bàyyi làmb moo tax. waaw mais du ma ko daan tudd. Mm-hmm. nit ñi yàgg leen ma xamee moom mais man maa jël engagement bàyyi làmb fi ma bëgg yegg ci yàlla man bëgguma doon sëriñ man nitu yàlla bëgg doon fi ma bëgg yegg ci yàlla. àndut ak yëngu trop ci làmb ji et làmb ji li muy laaj. li mu laaj comme li ma wax Modou Lo mhm. làmb ji lu muy laaj moom bu fekkee ne bëgg na continuer ak ndamam dina def ni mbari def fu ne ku ko xamul nag ko xamoo ko mais Modou Lo mooy mbër mi gën a néewal gàllaaj ci Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet bi Sénégal 4 TV mbokk la ñu bëgg ak contentement dikk ak yéen ci seen émission bi ngeen tànnal seen bopp tey nag ñu dalal fii koo xamante ne nii Sénégal gépp ñoo ñu ko doon laaj fan yële passé gis nañ ko ci benn site internet bu ñuy wax bataaxal TV di suñuy morom bi naataangoo suñu benn xarit di suñu soppee bu ñuy wax Fadel Mbaye dëkke suñu nopp di ñu wax ne ana lan moo tax ba du ngeen seeti ki nga xamante ni moo di sëriñ Mouhamed Lamine Jooy bëgg yàlla ndax itam xam-xamam wér na te defe naa ni bari na loo xamante ni war na ko mën a partager ak askan bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la jaare di la jox sa wàccuwaay waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sit bi ñu ngi leen nuyu te di leen siyaar di leen baalu ak di leen baal di sàkku ñaan ci di leen ko ñaanal comme li ma faral di ko waxee rek di gërëm suñu ñaar way jur yi di gërëm tam kilifa diine yi ndax amul lu dul kilifa diine di ñaan yàlla ne leen ñëpp ormal ñu ngi koy jiital nag euh, xalifa général di Tijaan Sëriñ Mbay Si Mansour di ñaan yàlla yàlla yàlla gën ko fi bàyyi te dëgëral ko noonu leen ko ñaanee suñu way jur Sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké noonu tam lañuy ba dab ba ci alaaji Basiru Ndaw xalifa daaru salaam euh, alaaj euh, xalifa daaru salaam ak waa kër Ba Ñas ak euh, maam Limaamu Laay maam Bunkun ak mboolem kilifa diine wala ñu ne mboolem jullit mm-hmm. weesu ne sax loolu ñu ne mboolem nit mm-hmm. ñu koy juy ñu koy ñaanal te di leen yéen ñoom ñëpp jàmm te di ñëpp nag ñaanal ñun tamit mm-hmm. ndax soxla neen ko mm. nga tudd Mouhamadou mm. ñu taftal ki sa tur bëgg yàlla waaw waaw la Lamine Thioye de <laughs> moom mooy tur bi mm-hmm. mais bëgg yàlla bi nag ñu bëri sax moom lañ gën a xam ñu mm-hmm. bëri xamuñ sama tur ndax gàmmu gi ñu defal fële sëñ Babacar Ndar te mm-hmm. ñu ko gàmmu seex fële tur a jógee ci benn daara boo xam ñu ngi kàmbureen suñu way jur bu baax a baax a baax a baax ku tedd ku sell daayireem laa àndoon dam kam euh, dam dam fa dama xamul ndax bëgg na ko tudd turam ci lii mais ku baax ku sell ku ñeme kurus ku set wecc bu mu waxee Cambérène rek Cambérène ñëpp xam leen si daayiraam ñenn ci doom mhm. moom la tuddee bëgg yàlla ah. parce que comme dafay gis moom ëtt bu ñu rek macha allah bu pare ji dogee rek mhm. ma ne ko góor gi dolli mu jékki-jékki na xanaa yow yaay bëgg yàlla fa la turoo jógee nag ah. wax dëgg yàlla nit nag mun taftalee sa tournée mhm. bëgg yàlla ah wax dëgg yàlla kenn foog naa ne waroo waroo ko waroo ko bañ. dëgg la vraiment bëgg yàlla moom wax dëgg yàlla tur la boo xamante ni ku nekk boo sañoon mu toftalu ci sama tur. waaye nit tu jag du tuddal la borom jagle tawféex. jagle tawféex gi nag moom man maa ko tuddal sama bopp. jagle tawféex waaw ndax yàlla dafa daf sama bopp bi maa sa allahu lu ci nekk ci wàllu xam-xamu sunguf maam li ci ma yàlla jagleel dafa jiggi dayoo sama maam. sant dëkk tuddee ko jagle sama garab yi bu ñu nit jël am tawfeex moo tax ma boole ko tuddee ko jagle tawfeex sama dëkku maam mhm. laa bëgg tur yi dam sama maam nit mosul ko fekk muy nelaw foo ko fekk mu ci kurus wala mu ngi ci wala wala wala wala mu ci alxuraan ñu nag ci yoon boobu tam lañ jaar yoon boobu rek lañ jaar gémmantu daal lu ñu ñu comme sama maam mos sa sàkku nelaw fi mu nekk daal la ko nawet bi fekk bu fa paree kii ko ñun nag ci yoon boobu lañ jaar ci yoon boobu leen bëgg a dem waaw loolu nag comme am na benn dëkk boo xam ne moo ko sancal boppam te man fa laa dëkk fële ci frontière Gambie ba muy jagle gàcce ci côté Ngayeen Sabax tur boobu nag moom moo tax ma tuddee ko jagle tawféex. Mhm. defe naa ni sax ci wàllu jagle tawféex boobu comme sunguf yi. Mhm. dañ ci gis benn sunguf bu ñu yéem. Mhm. bi ñu egsee ba ak itam ñi nga xamante ni def nañu ay témoignages. mooy sunguf buy génne forme jigéen. ak di may góor yaram bu rafet. waaw loolu moom. Ah. Euh, comme ni ma la ko waxee rek. dëgg la nag boobu am na luñ ci jàng ndax damoo neen Côte d'Ivoire am luñ ci kii mais sunguf yi ci garab yi lañ koy defaree maanaam lépp naturel la mooy comme bii nii garab yi maanaam garab yi garab lëjum bii ñu lekk nii. lëjum bii ñu lekk. Mhm. ci laay liggéey sunguf yi sunguf moo liggéey. Mhm. ci lëjum laa ko lekk. am na am na bii am na bu xale am na am na bu xale boo xam ne tam day jox xale yi euh, day jox xale yi fam bu rafet macha allah mhm. mais bii moom jigéen bu jigéen buggu lekk maa am nga jël six pot yi mhm. six te seerul boo jëlee six pot yi noo bëgg a mel sa forme di ko mel insha allah rabbi te itam boo bàyyi itam day tax day loolu loolu day continuer ah. muscle yi dafay bëggoo maanaam du nekk loo xamante ne da ngay lekk mm, non non non lii ruy rek lii da nga koy ruy rek lu ñu ruy rek la même bu fekkee ku bëgg góor ñi bëgg poitrine mhm. moom itam noonu la da ngay jëfan da ngay ruy rek naan noonu rek la da ngay ruy rek naan amul leneen naturel la cent pour cent naturel mhm. lépp lépp lëjum la ak dugub. la jumla ak dugub. jagle yàlla daal moo ji moo ci nekk. defe naa ne koy jëfandikoo comme góor ñi laaj na tamit ngi des fois waaw ah. même jigéen ñi boo ko jëlee. Mhm. di nga tàggat sa yaram mais diir bu gàtt la. Ah. diir bu gàtt la. du ma sax dix minutes. Mhm. xam naa ne am na ci boo xamante ne moom ñàkkul daal nga ko jox Modou Lo ndax dégg sa waaw Modou moom. Ah. ni ma ko doon waxee si jëlee. boo gisee may tudd turam léegi nag. Mhm. li ma jël engagement bàyyi làmb moo tax. waaw mais du ma ko daan tudd. nit ñi yàgg leen ma xamee moom mais man maa jël engagement bàyyi làmb fi ma bëgg yegg ci yàlla man bëgguma doon sëriñ man nitu yàlla bëgg doon fi ma bëgg yegg ci yàlla. àndut ak jëngu trop ci làmb ji et puis làmb ji li muy laaj li mu laaj comme li ma wax Mawlo. làmb ji li muy laaj moom bu fekkee ne bëgg na continuer ak ndamam dina def ni mbëri def fu ne ku ko xamul nag ko xamoo ko mais Mawlo mooy mbër mu gën a néewal gàllaaj ci Sénégal. mais ñëpp dañ ko fage gàllaaj ma loolu bisu làmb rek lay laaj gàllaaj parce que parce que bisu làmb dong daanaka la ngay laaj te itam ñu ko jege bu ngeen ko waxee ne moo loolu bu amee problème ko jege rek ci loolu la xam nga ni day dem ca àll ba fu sari wala ci biir dëkk bi daf ci dafa ci gàllaaj lu lu ne ci moom ñoo jox ko du ko jëfandikoo parce que moom gëm bi mu gëm boppam na kum taxawal moo man loolu nag moo ko xaw a sonal te itam nag làmb ji demee noonu làmb ji dafa am mystique bu baax a baax te mystique bi dafa garaaw ku ci bëgg a yëngu xoolal sa diggante yàlla ah nga dam ci rek ñun nag ñaan yàlla jox ko ginnaaw ñun loolu lañ ñaan yàlla donte li bu ñu nekk xamoon ne dafa araam ndax ñun dañoo jàll dafa lañ jàng na alxuraan jàng nañ sariya mhm. xam nañ ñu araam yëpp mais xëy na yàlla ak ñu si doo ko gindi waaw dafa am lu doy waar lu xew ci làmb ji supporters yi fans surtout ay fans Modou Lo di ko wax hmm. ni Modou Lo dañu ko gën a mën am ci expert yoo xamante ni na dañoo gën a sax ba gën mën ay sëriñu Modou Lo ba léegi daa ko mel ni yow waaw man de xawma ndax xawma ndax sëriñ cëpp daan na leen de loolu de xawma ko te ku lil xaq wala kaana morom na nga wax dëgg donte ne da ngay dee man moom wax dëgg yàlla bi lamb ji paree <laughs> xaw naa sonn man waaw avant lamb ji mhm. xaw naa sonn mais ñi ma nekkal parce que moom loolu yàlla dafa dogal moom estade bu fay dem maanaam ñoo xam ne buñ ma seen estade rek commencé insiviré am na ñoo xam ne buñ ma seen estade rek commencé insiviré gis nga lamb ji anduma ak ñoom dama leen dam leen man dama leen wax ne dam leen parce que tam wax dëgg yàlla li may yëg sama yaram li may sentir aw ma yaakaaru ndam tey ma ne leen dam leen mais gis ma ootee doomu aadama yi moo tax ma mujj fekk leen stade bi ma leen fekkee stade tam dafa ma fa vingt minutes damay dugg stade fekk timis di ma julli timis fekk na yàlla dogal na comme ñun yàlla dafa dogal ñun dañuy am gént am na kii xalifa général bu mag boo xam ne man borom gént gi la ma tuddi woon yàlla dafa dogal génn àdduna mais boroom gént gi la ma tudde woon mhm. parce que dama géntoon ca gannaaw semaine samedi bële ñun ma bind ci loxo Modou Lo baat bii bu dara des lu ñu làmb ko bu ar bi làmb bi pare mhm. bind ko mu won ko ki muy jàkkooloo ne ko nii bu ko defee dina mucc te itam yàlla mën na ko ci am da mais bu dul loolu du koy baat boobu nag bind naa ko ci loxoom mais nag wax dëgg yàlla bi mu koy bind bind naa ko toog lu ma 30 minutes làmb ju commencé te nii leen ma waxoon mais nag xam nga mbër mu nekk am na ñuy àndal ñooñu ñooy wax ñu ñuy doxalee ñoom ñooñu ñooy wax ni ñuy doxalee xëy na yàlla ma bëggoon a génne ci làmb rek parce que man dama ragal defet man man dama ragal defet dama ko ragal moo tax ma ne moo koy wax toujours si di may dem ku ma mos a jëflanteel man yow am man amee ma la àq yow yaa amee ameel àq mais man dama la ameel parce que bu ma la joxoon tey lii nga ne ma nii doxoon rek am naa problème dinaa lu ma def dinaa dafa dafa dafa daf ba nga ne ma ah, léegi de gis naa résultat man noonu laay liggéey. ku noonu laay liggéey waaw man loolu. xam naa bi ay fan su Modou Lo tiit nañu ndax tey si tey Modou amul ay sarax wala boog loo xamante ne war na ko def ngir mën a mucc ci gàllaaj yooyu. nga wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla Modou na ko réew mi ñaanal Modou Lo ko réew mi ñaanal ak ay ànd doom sax farandoom sax ne leen réew mi ñaanal Modou Lo bu bu bu amul taxaw dina doy waar. Mhm. na ko réew mi ñaanal. lool maa ngi koy sàkk ci ñëpp waxuma nag ne diw daf wala diw yooyu yëpp man intéressé ma mais daal man mi nga xam ne yàlla dina may wan yenn yenn yenn mbir yi xam naa ne Modou moom ittewoo na ñaan te maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla sàmm ndax man tax di dëgg yàlla teraanga yu bëri bëri jaana suñu diggante man ak moom waaw teraanga yu bëri bëri bëri jaana suñu diggante ak moom maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla taxawal ah moo koy wax rek bu fekkee bëgg na continuer lamb il faut mu daf ñu bëri de waaw moom gëmul lu dul entraînement. ok loolu rek la gëm bu fekkee bëgg na yàgg ci lamb mm. ah dina daf ñu bëri de. Mm. waaw te itam bu defee ni mbëri day nekk croissant rek incha allah rabi. incha allah incha defe naa ni kàddu yi rafet na wax dëgg fa yàlla waxtaan wi tam am na solo waaye rek liy duuf ci nag yi moo xajul ci cin bi. Mm. mel ni nit ñu cërale woon ci waxtu fi mu toll nii daal dinañ guur sëriñ bi xanaa nga defal ñu ñaan. waaw euh, balaa ñu def ñaan. Uh-huh. ñu fàttaliku ne ñun du lii rek la ñuy def ngóora wàllu ngóora mhm. mbooleem feebar bu doomu aadama di am bu njëkk dama daan lim bu njëkk mhm. dama daan lim mhm. naa la ñu mel ndox si di hémorroïde euh, ballonnement nii nii nii mais léegi dama naan feebar bu doom aadama am bu jëflanteeg man te ñi may xam wax nee na man du ma waxoon bu jëflante man feebar boobu dana deñ insha allah rabbi xam lu tax ndax liggéey naa li may liggéey tëdd sama borom ma ne lim bii ci alquran lim bii ci ay alquran boo ko defee nii feebar boo ko def mu wér man mii di wax yow asma xaw na maa rey man mii asma xaw na maa rey te te ñii alquran nag yàlla moo ma ko bëgguloo nii laa ko defee loolu deñ ak ñeneen ñu ñu bëree bëri bare bëri bëri bëri bëri macha allah ñu bëree bëri bëri bëri kooko ci jox rek dana la wax na gis naa gis naa résultat bi mm-hmm. waaw kooko ci wax ne dana la wax ne gis naa résultat bi mm-hmm. waaw jox naa ko ni koo xam ne sax nee na moom dafa yoroon cancer ñu ne ko cancer bi gisatuñ ko waaw mhm. jox naa ko koo xamante moom itam Italie loon biiram feebar nekkoon na ci boo xamante ni euh, maanaam ët bu ko biiru dalee bu demee bu demee mhm. gaa yi duñ gis dara mais keroog bi ma ko ko joxee bi demee la gars yi gis feebar feebar bi euh, opéré ko mhm. kon nga xam ne alxuraan amul morom waaw foofu daal la ñuy tàggatoo bu fekkee wàllu ngóoróole nag moom da ngay ñëw léegi gis ko léegi incha allah rabi. Mm-hmm. waaw xam naa dinañu am temps di si waat fii yi dañ koy jël benn par benn. benn bu ci nekk ñu yaatal ko ba mu yaata def ko émission boppam. voilà mbokk yi vraiment am nañu mbégte ak contentement bu baax a baax ngeen doon ànd ak ki nga xamante ne mooy Serigne Mouhamed Lamine Thioye. Euh, voilà di ba bëgg yàlla lañu doftale aw turam bu ma neexee sax ma wax borom jagle tawfiq mooy euh, maanaam suñu fi nga xamante ne yéen a ngi jàkkaarloo ak moom. yow mi xamante ne nii yaa am aajo numéro bi moo affiché wu nañ ci bi woo ko lépp lu mu ci mën mu def ko lu mu ci mën mu bàyyeeg suñu borom mi nga xamante ni tëlewul dara di téléphone ñu ñëkk dëkk fi parcelle unité 24 fi leen dëkkoon bi daanaka ñu nekk Dakar ba léegi bu fekkee suñu ma téléphone yi booy bu nga xam ne man ku ma ci woo di ma ci jot mooy 77 123 07 97 mooy sama numéro man boo xam ne mooy sama numéro whatsapp boo xam fuma fu ma ngi ànd ak moom man kuma ma jot ma ci bu dul boo beneen am na tam beneen 643 72 85 li ci ëpp xale yi ma liggéey ñoo ko yor bu fekkee ne jagleel tawfeex bi tam dafa am numéro boppam 78 180 196 196 dafa naa la 81 81 bu ma